mbokk yi ñaari yaa ngi noonu ci diggi géew bi Ardo ak ku ci nekk yaa ngi ak say dernier réglage xoolal ma El la muy sotti kii di Ardo ci tànk ya ma am na lu muy lu muy sotti ca tànk ya moom El Hadj bu jéen Ardo am na benn benn bant bu mu samp benn mooso bu xonk wala moom la Serigne Ba yor di ko dindi noonu Saba ngay sëlmu ngi noonu ci digg géew bi Saba Ardo Ardo am na benn butéel bu mu yor dóor na yat ba dóoraat na ko ñaari yoon dóoraat na ko ñetti yoon moom Ardo yatu kel la de <laughs> ko xam pël xam koo yatu kel da koy sampaat wala da koy joxe sampaat na yat ba. waay waay zan puusal waay gis nga Ardo samp na yet ba moo nga koy bës Ardo ngay samp yetu kel ba am na lu nu koy wax sabaari gis naa ko mu yóbbu benn butéel waaye maa ngi gis seex xoolal Ardo lépp làmb am na benn butéel benn ci mbuus bu mu sànni sëriñ ba gatandu ko ak leket ba amete ngi noonu ci diggi géew bi lan la andeeti axasu na ci benn yoon ma nga koy sotte ca loxo ya butéel ba jeex na cax na ko mbuus ba nu ma koy def a ah, doo ngay sotteeku o oh, xale yi dañoo xajam saba daa noppi na fi mu toll Saba Ardo Saba supp na benn bëtu oomam am na benn fas bu muy tàllal Ardo am na la mu cey ñaan Ardo ngay dem ci moom romb na ko tibb na ca tànk ba Saba bañ na tibb na Saba bañ tibb na ko joxe Saba tibb na tànk Ardo cey làmb lépp tegtel la làmb daal lépp tegtal la Ardo noppi na. Ardo ah, am na lu ñu koy wax ma ngay defaraat gàllaaj ya ma ngay takk sengoor bi Cheikh dugg si waat na am na benn sengoor bu mu yor taalal na ko ko takkal na ko saba Ardo tamit taalal na sengoor moo ngi koy takkal boppam supp na benn bëtu oo moom taalal beneen tànk ba Ardo am na benn sunguf bu mu sotti seen diggante Ardo noppi na waaw a noppi na Ardo dafa mel ni dafa niin Ardo daa mel ni daa niin. Ardo ah, ngi noonu ñu koy fomp Cheikh dugg si waat na ci digg géew bi Ardo noppi na Saba noppi na Saba am na benn butéel bu mu yor sànni na ko ci ginnaawam Cheikh jël na butéel ba Ardo am na luñ ko jox mu sànni ko ci ginnaaw Saba Saba am na lu mu yor fu mu koy def sànni na ko ci diggante tànk ya jël na protège dent ba Ardo ak Saba arbitre baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ Saba ak Ardo àndoog Saba arbitre bi laaj na Saba mu ne ko pare na laaj na Ada mu ne ko pare na arbitre bi sifflé na dañuy daje Ada eh, eh, cokkaas na Saba Ada Saba Ada dafa bëgg a xeex door na gauche door na rat Saba pivoté ñu jàkkaarloo waat ñoom ñaar eh. Ardo dafa mel ni dafa bëgg a xeex ak moom Ardo ak Saba Saba wa ngay defar Senghor ba journée Habib Fakhat production Saba cokkaas na léegi Saba cokkaas léegi Ardo na Ardo ak xale yaa ngi lewaatoo ñoom ñaar Ardo mbokk yi moo ñu woon ginnaaw Saba la nu jàkkaar lool Ardo bi fi jóge moom Mbagnick Kaïré la woon grand combat mu daanu Saba bi fi jóge moom Mathieu la woon grand combat moom tamit daa daanu eh combat bi combat yërmande la ñoo ngay dem ci wetu saako yi waaye saako yi fekkiwul kenn Ardo moo ngem boo ngem weex li teg ci moosum xonk bi Saba moo ngemb moo lu ñuul li Ada cokkaas na léegi Saba reculé waaye dalul Saba daa mel ni da koo bëgg a jàpp Saba daa mel ni da koo bëgg a jàpp Saba cokkaas na léegi Ardo Ardo Saba eh Saba Ardo door na ko léegi daw gatoon ko Saba reculé Ardo lu mu bëgg a bëyal da koo bëgg a jàpp door na ko door na ko door na ko dooraat na ko. Adok Saba Saba da koo bëgg jàpp Saba da koo bëgg a jàpp waaye Saba ni nga yoroo baaxul Saba ni nga yoroo baaxul Ardo da lay seen booy ñëw Saba la mu bëggoon def na ko Saba la mu bëggoon am na ko jàpp na Saba jàpp na Ardo ndenge nañ Ardo nga dooyu saw ci suuf dooraat na Ardo Saba Ardo door na yu sew ci suuf yooyu kaani tëmbal la Saba moo ne woon ginnaaw lépp mën na cee nekk Saba ku nekk yaa ngi déglu sa morom Saba wàcc na Saba wàcc na Saba wàcc na daa bëgg a jàpp ca gaño ga Saba ngay dugg Saba ngay dugg tegal na ko 16 léegi ma ngay forcé Saba ngay forcé Saba ngay forcé tegal na ko 16 daan ko Arda daan na Saba lay lay la Arda daan Saba xoolal la muy def Arda daan na Saba Saba daan na jël bu ko bett ko forcé Saba Saba laabu kenn ko forcé Arda daan Saba xoolal policier la def Arda daan Saba. Ardo daan na Saba Ardo daan na Saba Ardo xoolal la muy def xool ko concurrent ba dem ca Saba Ardo daan na bu ko tegal sees na ko kaay nga mu bañ. teel ma teel ma mu dugg teel ma. seen baay. Ardo demu bee ñëw. Ardo la nga bëgg xale bi. sa fils. jërëjëf moo mu lay forcer di lay imposer doole. jërëjëf borom Touba sant nañu yàlla bu baax. affaire rek ñu jaay. dootuma bëri teg mbërëm. xam ah, bi léegi daf ma wan ne maanaam maay sa manager léegi di bëri jox ma di ma jàppale. di def loolu manager bu lu mu gis xam nga yëngati xaalisam jox ma. musul musul dagg relikaawam musul dagg reliquat loolu dam jàpp ba mu yegg si abi sifflé nga dox ci kawam di ko imposer bëgg a xeex ak moom waaw parce que déggoo li ma la wax li tax ma jël combat bi du ma si bàyyi virgule di sant ñi si jàpp ba mu yegg si fii di sant ñi si jàpp bu baax a baax bu ma limee rek damay jub waaw mais kontaan nañ bu baax a baax bàyyi leen loolu ardo ardo ñëwal ñu ci li nga bëre waaw li ma mooy consigne rek sa Ousseyn li tax ma jël combat bi boobu ba léegi du ma si bàyyi dërëm. dañoo gis sa waay egg la fa ñu dem waaw lamb daanu kii du daanu